société civile toujours mooy ñu respecter calendrier électoral waaye nag ci biir respecter calendrier électoral boobu lépp lu ñu mën a def pour mu am diisoo pour mu am waxtaan ci diggante acteurs yi ba am ba confiance bi ñu indiwaat ko ci processus électoral bi lépp lu ñu mën a def pour waxtaan am pour éviter euh, violence pour éviter jiixi jaaxa war nañ ko mën a def te ñun ci la ñuy dox. waaw ñun commencé nañ ci jox sax commencé nañ ci dox sax euh, dëgg ngeen ne fan yii passé barka démb rencontré nañu 43 yi nga xam ne dañu rejeté seen candidature ñu ngi ñu ngi continuer ci ci loolu ci loolu la ñuy dox fan yi fan yi fan yi ñuy dem ñii yëpp ci euh, euh, doxu tànk jàmm la ñuy dox pour fexe ba acteurs yi toogaat autour d'une table jéem a waxtaanaat